Taxaw leen defal leen ubbi la eh. waaw yar may ma jël ko gars yi ñu ko jël waaw may ma ana micro rek booy génnal yow noo yar. Jibi. chaque at nga koy def muy gën di yokk maam. bilaay bilaay ndeysaan. waaw nañ dem mooy togg mbaxal mi barke Serigne Fallou Mbacke dafa baax erreur mënut a ñàkk nag nit ku baax la nit ku ma bëgg la franchement billaay ñu gis ko muy waajal dëkk bi ak mbaxal yi barki sëñ Paalo billaay kontaan rek am na may oto nit moo gën a foor lu ne te ñun amuñu dara ngor am na nañu yàlla sunu borom te kenn ki la bëgg jar na dee jar na daw ba dee ngir ñi la bañ te euh, Zal Mbaye erreur daxoon na sama diggante ak moom te daw na ba regretté taxaw ne ma juum moo ma jàppoon ndax réew mi duñ la bàyyi boo jotee nit duñ la bàyyi ñëpp dañuy taxaw naan lii la wax lii la wax lii la wax mu baax waaye tey jii li des ci journée bépp damaa bëgg rek ngeen santale ma sëñ Fall te di ma laaj ci sama sëriñ di leen ma laaj ci Fallou Awa bu di leen ma wax kii la Fallou Awa Bousso maam Ndiaye sa diggante maam Ndiaye sa diggante ak Fallou bu Bousso loolu laa bëgg ngeen ma koy laaj tey loo leen ma laaj lu dul laajoo leen ma sama diggante ak Allah ji Fallou duma leen ko baal dëgg la ñenn ñi dañu ne intérêt la rek ma ne ko sëñ Fallou rek man ñëpp laay teral teral naa buur teral naa baadoola teral naa samay maas ku ci xaj ma tere la ba yéen journaliste bu ngeen ci xajee ma teral la sëñ Fallou damaa teral soom bi laa doon añee di ko ndékkee di ko reeree mu metti loolu waaye tey moo ma tàggale xiif tàggale maag dox xar ma xar xolu jaami def ma ci kenn respecté wu ma woon ken joxu woon cër bi ma amee sëñ Fallou laa sigg ci réew mi bi ma amee sëñ Fallou laa doon naan bi ma amee sëñ Fallou la ma yàlla teral bi ma amee sëñ Fallou laa yëg avion bi ma yàlla bi ma bi ma sëñ Fallou teralee ci laa taxaw ci avion bi ne yàlla mën na lu ne ndax ki daan toog ci territoire tey moo toog business class teg la tànkam ñu naan ko looy lekk ak looy naan waa sant yàlla day nduroog fecc. maam ngay fàttali dara si yow mu métti lool nga woo sëñ nga yëg ni sëñ Fall sëñ Fall bi muy métti ma koy woo dafa yàgg boobu sonn naa jaaxle naa aw ma dërëm yoruma dërëm awuma dara ma koy woo guddi di ko woo ba tëdd ba may wéetoog moom ca xabrom ba tëdd di fa nelaw boobu man rek la woon ak moom ak yàlla sama digganteeg sëñ Fallou du kenn ku ci dox directement la. turu Mame Ndiaye est-ce que bokk na ci looloon ñaan sëñ Fallou. turu Mame Ndiaye Mame lañ ma tuddee. maam coow li nga am ci réseau yi maam lu mu laal mu am coow. est ce que daan bokk say ñaan ci sëñ Fallou. yéen ñaata at ngeen yor micro te amoo leen coow man maa jënd micro ñaari fan am coow xale yëpp ma laal a lu ma laa ñëwee sa longévité naan ba léegi mu ngi tenir le coup. ay waay sama nawle yi yomb dama koy té tay laa ko mën a téye bul yàqam ma ne leen du ma nit nit ñi ne day wax waxi dof ma ne leen du ma xeewi nit ñi ne day wax waxi dof ñaata am carrière boosu Sénégal un mois la ba semaine sama bës bi damay dem ba doyal jox sama sët sëtaan ndax allah ji fàlloo ma taal te mooy ñaar ci kanam moo ko sëlal sama bubel maam sa naw lay ñëpp invité woon ngërëm sama la ñu xaar tey ñëpp ay ñëw maman fi guerre ñoom ñëpp mën nañu xaar non maman génn na nee na dafay dem ci kër gorom te nag xëyee jël ndax xale yi dama leen a nàmpal ci sëy dama leen a nàmpal kon ku ci am jëkkër yi ne sëy yay dëgg damay ànd ak ñoom ci loolu parce que sëy rek ay dëggal ku sëyut perte nga Zale Mbaye nee na doon jàngi dawal day daa demoon daa demoon daa demoon defi permis kon may nga ko oto ah gis nga doom bu màggee débit débit ndayam xale yi ci réseau bi yëpp ay ree lañ ma def ndax nag tubaarkaala nee naa la nday daa foot ci doom te bu koy nampal da koy xool xale yi bu ñu nee der nga gis maam Ndiaye kon loolu dafa fort. maam déwén kasi rajo bi xaar da nga koy génne fii parce que fii xajatoo fi gis ngeen. non ma bii déwén moom incha allah fii moom. ku moom lii nañu dellu bi ko rapport yow ngay liggéey may liggéey bu ngeen avancé liggéey bu ngeen avancé bu ngeen avancé foofu baax na man yaay sëñ Fallou lan ci jiddi bi la ci yaa jekk nag lan naa lan naa sama waaji yoloo te bu jekk borom ndey ju baax ji yaa barka allah ji fàllu màkk da nga baax do tijji ko Maam Njaay sa bo mu ngi ñëw Amen Boy. Bariya mo sa yung. Eh, ang sino

jug leen taxaw teeru ko Mame Ndiaye ak dugg ci jug leen taxaw Mame Ndiaye ak dugg ci jug leen taxaw Aja lu gaari be taxawal lu baa ngi ñëw

Yeah,

I made. loolu ko ko indi mbooloo bi ak journaliste yi ngeen baal ma ngeen dellu ginnaaw tuuti